wadaaka kat naa naa ci moom alfadaaw jaww ji yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa keroog ba ko yàlla di yónni dafa xaar asamaan ba jinni mënu koo jege ndax jinni yi kat dañ daan yëg ci asamaan suñu yéegee di déglu ay xibaar su ko defee buñ ñëwee wax ko seeni xarit yi nit ñi gisaani kat yi waaye dañ ci jaxasi loo pour téeméeri fen baat boobu di dëgg nag léeg-léeg gisaanikat bi wax ko comme ko wax gis ko su ko defee nag mu jàpp ne gisaanikat bi mooy wax dëgg fekk baat boobu moom baatab dëgg la jinne jaa ko jëlee ci kaw asamaan bay malaaka yi mm-hmm. di tasaare xibaar yi mm-hmm. waaw waaye nag jaxase nañ ci lu ëpp téeméeri fen benn dëgg bu téeméeri fen nekk mm-hmm. jar naa moytu ndax fen yooyu lu mën a yàq kenn xamul mu toll ah bañ nag jinne yi jax-jaxal nit ñi kat dégg dara ci alquran su ko defee ñu gaaw ñoo jox ko nit ñi mm. su ko defee yokk ci ay fen kii waxul dara nangam ak nangam mm. ñun lay toppandoo rek ak yu demee noonu moo tax yàlla ba mu bëggee ñun yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mm. dafa xaaraa samaan xebar yi yoo xam ne ñu ngi yore biddiw junne ju jege asamaan rek ñu sànni la ko ko defee nga daal di lakk daanu kenn mënatu dégg benn xibaar moom lay wax ne mm-hmm. yàlla xebal na jamono jëmi yoonu yonent bi lu mu yebal ay biddiw xiraasan ñi da way garde asamaan wa daa xat naan haa ci biddiw yooyu alfa daaw jaww ji biddiw yooyu sax ñoo xatal jaww ji nga xam ne jinne mënatu yéeg ci asamaan biddiw yaa ngi faq rek di leen dàqe loolu xew na ci juddug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su man taqala mu naa woonaa fii yatakallamu di wax ala xiraasati samaa yi ci garde asamaan wa zalika loolu min irhaasi nubuwati mu ngi bokk ci xar baax yonentum irhaas mooy mbir yu xotti aada yu yéeme yi nga xam ne dana xew bu yàlla yónni gënunt loolu moom lu bari xew na ci ci juddu gënunt yàlla Muhammad sallallahu alayhi waaye keroog ba nga xamee ne waaw yàlla nga ko yónni defaat na foofu beneen irhaas muy mbir mu xotti baax wa min zuhuri mojizaat yi bokk na ci feeñ ak ay kawtifam waaw sallallahu alayhi wa sallam ban sa na laa yàlla a ay biddiw ala shayatin si seytaan yi allati ya nga xam ne tastariqu dañuy sàcc asama déglu mina samaay ci asamaan mm-hmm. yaatuuna ñu ngi indi bi axbaarin malaayikati ci xibaaru malaayka ya mi maaye samoona ca la ñuy dégg min al bi ci faddu yàlla xebal na mm-hmm. ay biddiw yoo xam ne dañuy dal ci kaw seytaane jinne yi mm-hmm. yi nga xam ne dañ laan yëg ba ci asamaan déglu xibaari malaaka yi waaw lay xew ci wàllu xaybu uh, suñ ko dégloo ñu li ko seen nit waaw su ko defee nag ñëpp fonk jàpp na jinne yi dañoo xam xaybu fekk jinne xamuñ xaybu dañoo déglu rek waaye nag ba yàlla yebale yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam ci la leen xaaye ku jege rek ñu sànni lay biddiwum fa yeban su mu yebal allah yàlla shuuba biddiw yi fi samaay ci asamaan hiraasatan ñu di way garde min an tasila ci mu yegg shayaatinu sheytaane yi lay haajim ci moom yalla hebal waaw biddiw yi ñu garde sheyt ñu garde asamaan ba sheytaane du mën a yéeg ba ci asamaan wa taxara mu laabal asamaan <laughs> sallallahu alayhi wa sallam hada lii fi qurbi mubaasi mooy ba juddu yonent bi jege sallallahu alayhi wa ba nga xam ba yónni yonent bi jege laa bëgg a wax fi qurbi mubaasi si jege yonentu si jege yónneem sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne yónni ko jege na waaw ci la yàlla def <coughs> dégg nga kawteef googu jinne yi mënatuñoo yéeg loolu nag ay histoire yu bëree bëri bëri xew na ci gisaanikat yu bëree bëri bëri nettal nañ ko ci. waaye xatru bun malik ak nettalem rek doy na mu ne wa xikaayatu xatru bun malik nettalem xatru bun malik fi dalika ci loolu mashhuratun lu siw la waaw moom dana nettali histoire boobu awrada rotal na arwaatu ñay nettali xadis an noone moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zakaru tudd nañ benn yedey ci kanamam rajma samaay jamab asamaan bi nujuumi ci ay biddiw asamaan ci sànni gi mi sànni ay biddiw dañ ko nettali ci kanamu yonantu foox bi dañu daal di xibaar bi haada ci bañ koy waxtaanee waaw yonent bi xibaar leen mbir mi fa xaama mu daal di taxaw ilay jëm si moom rajulun ab góor min ahli yaman si ñooñ yaman bañuy waxtaanee biddiw yooyu rek benn waay ci waa yaman jug fa xaala mu daal wax la wu ñeel yonent bi mu daal di wax yonent ne ko bi abi maa ngi giñ sama baay ummi ak sama yaay yaa rasulallah yonent yàlla bi naanu ñun awalu man arafa ñoo njëkk a xam xiraasata samay garde ga samaan benn waaye ci waaye man ne ko maa ngi sama baay ak sama yaay yow yonent yàlla bi ñun de ñoo njëkk a xam garde gi nga xam ne waaw garde nañ ko asamaan sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne wazalika loolu ni mu demee mooy an naa naka ñu ne tamaana dajaloo nañ ila kaay ci ab gisaani kat ñeel ñu yu xaalu ñeel ko xatru mun maalik xatru bun malik gisaani kat la dañoo daje woon moom wakaana nekkoon na moom cheikhan di kabiran mu màggat xay ata dikk naa ne ci moom mi ata sanatin ñaar téeméeri at xam nga ne kooku mag la na ñaar téeméeri at ko yaa xaatir moom la wax yow xatru matara loo noo gisee maa xadasa la xew na fi samaay ci asamaan min ramin nujuumi te mooy biddiwee ñi sànni fama tara loo gis fi zalika ci loolu nit ñi daal buñ jàqee rek ci gisaani kër yi la dem moo tax bañ jaaxlee ñu ñëw si xatru bun Malik ne ko asamaan saa ngi sànni biddiw loolu loo ci xam fay naa naka ñun xif naa ragal nañ ah xibata mu jëm kon loolu daf lay wan ne ñëpp doon gis biddiw ni ñuy daggee ci asamaan ñëpp a ko doon teg bët moo tax yónni yónni ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku weddi da ngaa nar a rek waaye moo gën a moo gën a feeñ jëntam jëloor ñu ne ñu de dañoo ragal waaw biddiw yi di dagg muj ga du baax ci ñun lu xew fa qaala lanaa mu daal di ñu wax ne ñi ituuni dikkal leen ma bi saxarin ci njël xatru ne leen bu fajar jotee ngeen ñëw axbirukum danaa leen xibaar ci xabar bi ci xibaar bi alxayri ndax yiw la awi shari wala xay la li nafin ngir njëriñ la aw durin wala ngir lor la <laughs> bu fajaree ngeen ñëw danaa leen wax biddiw yooyu di dagg di wàcc hmm. ndax yiw la hmm. lu baax la wala xay ci yàlla na mu hmm. njariñ la wala aw lor la wala ay njariñ la ndax dikk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa njariñ fa réew kaw xaal bu ko defee waa ji ne faatee naaw ñu dikkal ko fi waxtu saxaar ci waxtu njël ba fajar jotee ñu ñëw fa wajet naaw ñu fekk xatru moom jaari san ma ngaa toog ala sati daari waaw ca teraasu këram ma nga toog ci kër ga fala ma ahasa ba mu yégee bi naa ñun xam ne ñu ngi ñëw acara ci la junñu ilay naa jëm ci ñun bee di ci loxom anaj li su ne toog leen ba mu na ne ñu ngi dugg si rek mu juñ ñi loxom nañu toog leen fajalas naa ñu daal di toog saatan ab waxtu su man xaddamu daal di wàcc azimun aji màgg mi na sama jógee ci asamaan su ko defee rek benn waaye daggee ci asamaan wàcci jinneem jëla fasara xamu daal di yuuxu alkaayinu njabarkat ba bi ala sawti ci kàddam gi gën a kawe bu ko defee xatru daal di yuuxu nag ne wallahi biddiw yi jot nañ ko asaaboo waaw lakk ga jot na ko aaraqoo lakk na ko shihaabu ay biddiwoom xamaraha jaxaso naag moom wala xamaraha muur na ko asaabu mbugalam yàlla xalla wàcc na binaa ci ñun iqaabu ak mbugalam bal baalu waaw ak njàqareem wàcc na ci ñun yaa waylatana ay suñuy musiba maa dan bid ay tàllu loo ñeel ko in xatan dagg na ay buumi cëram tamasaqat foñattiku na aw saalu ay cëram ndeysaan bu ko defee rek toogee gis benn waay ku màgg rek wàcc jugee ci asamaan mm-hmm. njabarkat bi daal di yuuxu muy xatru mm-hmm. ne jot na ko jot na ko mm-hmm. biddiw ya lakk nañ ko mbugal ma jaxasoo na moom mbugalam yàlla wàcc ci wàcc na ci ñun njàqareem wàcc na ci ñun toskare ñeel nañu biddiw yaa ngi tàllalu jëm ci jinne yi waaw su ko defee nag jinne jum dal rek eh, ay ay ay ay ay siditam dafay dagg lu muy xataan xibaaluhu mm-hmm. ay cëram foñet ko waaw su ma xaala mu daal di wax la naa ñeel ñu mm-hmm. bu ko defee xatru daal di leen wax na leen mm-hmm. yaa machara bani qaxtaan e yéen mbooloom banu qaxtaan mu ne waaye man uxbirukum dana ma xibaar leen bil àq ci dëgg wal bayaan ak lu leer lii ma leen wax moo di dëgg te leer la ak aqsamtu gëñ naa bil kaabati ci kaaba ga wal arkaan ak ponk ya maa ngi ci kaaba ga waaw ak ponk yi nekk ca Kaaba ga dégg nga wal bayti maa ngi gën ci ka euh, néeg ba mm-hmm. almatini sirri baa dëgër mbóot mm-hmm. Kaaba gi nga xam ne mbóota mbóot mu dëgër la fa yàlla maa ngi ciy gëñ an na lii mbir te mbir mu ne a tere nañ mm-hmm. asamaan wa asamaan inaaqul jaanni doqi jinni doqwante jinne yi wala itaaqul jaanni jinne yi tedd yi jinne yi gën a foor sax mënatuñoo yëg ci asamaan ndax aar nañu asamaan bi sàq bin ci biddiw way aji faq di daanu seen kaw bi kafi si sultaanin mu ngi ci tënk ak borom kattan malaaka yoo am kattan ñoo koy sànni lu tax ñu aar asamaan ci biddiw yooyu min ajli maonsin ngir kañu yónni azimi shaani ku màgg mbir yàlla dafa war a yónni yonentu boo xam ne mbiram mu màgg la loolu waral ñu aar asamaan kenn du yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booy sa yoon nañ ko bi tanjiiri ci waaw alquran bi ñu wàccee wal quraan yi ak alquran ji nga xam ne dajale na mboolem xibaar yu jëriñ doomu aadama quraan mooy firi dajale furqaan mooy firi teqale alquran am na tur yu bëree bëri waaye mboolem turi alquran yi dajaloo na ci ñaari mooy quraan gi firi dajale. furqaan lii firi teqale jaam balaa mat foo mu boole ñaar yooyu comme ni nga xamee ne yàlla am na tur yu bëri waaye tur yàlla yëpp boo ko doon xool da gis mu dajee ci ñaar aljamal gii firi taar wal jilaal ak ak kii firi màggaay alquran yi noonu la mel wal huda wàcc nañ ci moom jub faasiril furqaan yi mu aji teqale furqaan furqaan mooy leeral diggante dëgg ak caaxaan kooku yonentoo koy teqale tabtulu dana yàqoo bii ci moom ibadatul awsaani jaamu xërëm wa tasaharu dana feeñe bii ci moom ibadatul rahmaani jaamu yàlla yonentu boobu bu ñëwee jaamu xërëm dana yàqu jaamu yàlla daal di feeñ nag loolu la xatru wax xaal bu ko gi ne fa qul naa lahu ñu ne ko innaka naka yow la taskuru yaa ngi tudd ana lan nga li xaw mi ko li ngay wax lan nga ñuy xaal bu ko defee xatru ne leen mm-hmm. araa danaa gis li xaw mi nit ma araa la ma gis li nafsi ñeel sama bopp mm-hmm. li ma gisal sama bopp rek laa leen gisal mm-hmm. ma an yettabiu xayra banil insi burhaanuhu misla shuaai shamsi an yettabiu nañ topp xayra banil insi ki nga xam ni moo gën ci doomi nit ku nit jur ko kooko ko gën nañ ko topp rek burhaanuhu ay layam misla shuaai shamsi mu ngi ceeneeru jant sallallahu alayhi wa sallam lay yàlla teg ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kooku dafa leer ba mel ni ceeneeru jant ko weddi rek da ngaa nar ko waaye mbiram leer na yuridu dana namu bi ci loolu mu wax zuhuru mujizaati feeñ ak ay kawteefam sallallahu alayhi wa sallam kawteef yu feeñ yi yàlla di teg ci ay loxoom wane na ne kooku ko yónni yàlla du yónni mukk waa du du may kawteef mukk koo xam ne da koy naral su ko defee muy def loo xam ne nii kenn mënu ko kenn xamu ko loolu yàlla du ko def jaam buy naral waaw bu bu njabaree it yàlla dana ko booleeg wala yàlla bu wane ne lii njabar la <laughs> ci ay preuve leer nañ ñi niki ko yàlla defee woon ci diggante Moussa ak waaw njabarkati Firawna ya daan nañ def kawteef waaye yàlla xebal nu yonent yàlla musaa mu mu yàq seen njabar googu wane na lii du kawteef njabar rek la <laughs> waaye bu Moussa bi moom kenn mënu ko yàq ndax ci yàlla la jógee bi baasin mu ne danañ ko yónnee bi makkati ci makka daaril xumsi waaw kër ak xumsu waa waa màkk ñoom dañ leen wax xumsu waaw ndax ñoom ñoo gën a yeewoon ci kaaba ga dégg nga daawuñ dem waa arafa sax taxaw bu insha allah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee nag yàlla na dereen leen taxaw arafa comme nu fa ñëpp di taxawee dégg nga waa xumsu mooy waa màkk foofu lañ ko yónni bi mu xakami tanzili ci alquran duñu xereñ ak wàccam xëyre lab si bu amul lënt mu ne yàlla dana andi alquran ci moom alquran joo xam ne waaw wàcce gu xeneñ la ko yàlla wàccee maanaam léppam njëriñ la ni mu wàccee njëriñ la niñ toftalee baat yi xam-xamam ci waaw niñ toftalee saar yi xam-xamam ci alquran daal loo si changé rek yàq sala yàlla doolu xalallaahu ala alayhi si ko musal bu ko defee nag xul naa la ñu daal di ko wax ne waajooju bokk yaman mooy nettali ba léegi mu ne ñu ne ko ba xatru waxee lii wan fi yonent juddoo xul naa la ñu ne ko yaa xatru yow xatru min ayil qabaayil yi ci ban kuréel la woo moom yonentu boobu ngay wax ci ban kuréel la bokk xaala mu ne wala xayaatu maa ngi gën ci dund wala maa ngi gën ci waaw nekk gi ñuy nekk aychu xayaatu dund la innoo nag moom la min quraychin ci quraysh la bokk mu ne yonentu boobu ci waa quraysh la bokk maa fi almi dëdd nekk ci xam tey suñ ak xoyof xam-xamam xoyofut maanaam doye duut soofut daal wala fi xuluqi def nekk ci jikkoom xay mm-hmm. suñ ak yàq jikkoom lu yàqu amul ci mbind mi noonu mm-hmm. yakunu dana nekk moom yonentu boobu mm-hmm. fii jeexin ci soldaar bu ñëwee dana ànd ak soldaar waaye jeexin ban soldaar la mu ne aloo xaxtaana mooy ñuñ xaxtaan te mooy ansaar xam nga ñoom ñooy waa xaxtaan <coughs> mooy yaman ansaar seen cosaan yaman la dégg nga mu ne ko waa ansaar lay ànd ak waa alu ak ñooñu Quraysh mooy waa Makka muhaajiroon yeeg ansaar yi ñooñu ñooñu di soldaaram wax na lépp yonent bi qul naa ñu daal di wax loo ñel ko min ay Qurayshin ci ban Quraysh xaala mu ne xatru ne wal bayti maa ngi gën ci Kaaba ga ci daay mi borom ponk waaw innoo nag moom. lamin nasli Hachim mu ngi bokk ci doomi Hachim xam nga Quraysh giir gu la waaye nag ñu laaj ko ci ban giir ci Quraysh lay génnee mu ne mu ngi génnee ci doomi Hachim yi banu Hachim ci biir Quraysh la bokk waaye ci foofu lay génnee min maché akaarimi mu ngi jugee ci mbooloom ñu tedd ñi sallallahu alayhi wa sallam yubaasu danañ ko yónni bil malaaximi ci ay xeex waxat li kulli zaalimi ak rey képp koo xam ne tooñkat la buñ ko yónnee ay ay ay ay jihaad dana xew ci yonent yonentoom waaye dina rey képp koo xam ne tooñkat la moo tax ray na Abu Jahlin ak ñu mel ni moom su ma qaala lahu topp mu wax ko ne allahu akbar yàlla ji màgg la jaa dikk na làqu dëgg wa zahara feeñ na waaw moom dëgg wa bu'itha yónni nañ ahmadu ahmad xayrul bashari ki gën ci mbindeef yi wan xatan dagg naa yi jinni ci jinne yi alxabaru xibaari asamaan su ma qaala topp mu wax alxaqu dëgg wal bayaana ak la ak la leer mooy axbara nañ xibaar na ma bii ci lii ma leen wax raisul jaani ki nga xam ne mooy njiitu jinne yi moom wax li sallallahu alayhi wa sallam xibaar nañ ko loolu fa qaala mu wax sallallahu alayhi wa sallam ne raawi ñeel kay nettali xadis ba ne ko subhaanallahi tudd na ma sellam yàlla laqad nataqa tudd naan misli nubuwatin lu mel ni nubuwatu maanaam la nga wax yëpp dëgg la te neex na rafet na ba mel ni nubuwatu way noo naka la am baam la yubaasuñ danañ ko dekkil yawmal qiyaamati keroog bis penc wax doo moom dong moom xatarubun malik waaw kasiir ak waaw moom yoomal xiyaamati moom rek la yàlla dekkandooroon boppam parce que moom aw xeet ak boppam la nangul na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kasiir ñu bari me kuwaani si njabarkat yi axbaroo xibaar nañ bi haada ci xibaar bi yónni gi yonentu gisaani kat yëpp gisoon nañ ko sallallahu alayhi wa sallam kon bañ koy yónni balaa ñu koy yónni xibaar bi lay xaw na su ma qaala mu wax radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm ne tatrudu dana dàq ñoom biddiw yooyu aljinna jinne yi an maqaayida ci ay jotaay li sami ñeel déglu kama tatrudu comme nu muy dàqee ariaaw sàmm ya aziaba tilliya sallallahu alayhi wa sallam keroog bañ koy yónni wala bañ koy jege yónni biddiw yi nañ di dàq jinne yi wala seen tooguwaay yooyu ñu doon toog ngir déglu ba mel ni rek ay sàmmkat yu gis till yu yàq ñu leen di dàq ba buñ jege jur ga noonu la yàlla dàqee woon jinne yi ci seen jotaay yi ñu doon toog ngir déglu maanaa o mooy anna tilka shuhub naka yooyu la biddiw allati yi nga xam ne arsala yónni na ko allah yàlla fi samaay ci asamaan kaana nekkoon tatru di dàqa shayatina sheytaane ya wal jinne ak jinne yi anil maqaayidi ci jotaay allati yi nga xam ne itaadaa itaaduha baaxoo nañ faa toog min xablu bu njëkkoon biddiw yaa ngay dàq jinne ak sheytaane jotaay yi ñu doon toog ngir déglu xibaari asamaan mënatuñ faa toog kama tatru comme nu muy dàqee aziaba tilliya riyaaw sàmm ya mm-hmm. mel ni ay sàmm yi dàq till ngir buñ jege jur ga mm-hmm. su ma xaal topp mu war a ne fa maat faar naa mm-hmm. ayatal kahanati kawteefu gisaane kariya lu ko faar ayatun ay kawteef minel wax yu jugee ci wax ga maa la wu na déddi leen ñeel ñoom aaya yooyu ñoom kawteef yooyu in mihaaw ak faaru aaya yàlla ya maanaam mooy alquran faar na kawteefu gisaani kat ya la doon gisaani kat di wax nit ñi keroog ba alquran wàccee ci la ko yàlla arrêté dara ci xibaari asamaan waaye alquran ju moom dara du ko faar axbara xibaar na fi haadal bayt ci bile bayt anna ayatal waxyi ne kawteef yi nga xam ne ni al waxyu la woo moom alquran al azim mooy alquran ju màgg ji maat faar naa yetal kaxaani ci kawteefu gisaani kat yi wa batalat na bi sabab ci sababu kawteef googu hatta laa tuujidu ba ba jooju hatta laa ba amuñ baadal wax yi gannaaw wax yu bi sheen ci dara aaye wax yu mooy alquran alquran faar na kawteefu gisaani kat yi moo tax li la alquran mën a may leneen mënu la ko may mboolem buut yaa ngi ci alquran gannaaw alquran daal gisa njabarkat yi xamatuñ dara waayatul quran yi takkawteef alquran lan mi haa di faaru lahaa di ko ñeel ay laa maa hiya dir aji faar ko ñeel alquran ji moom kenn mënu koo faar sallallahu alayhi kon keroog ba nga xamee yàlla nan na ko yónni kawteef yi feeñ na sallallahu waral gisaani kat xamatul dara gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi xanaa wuli yàlla bu yàlla bëgg a xamal loolu de mën naa nekk ci jege yàlla la ko amee ak ci topp yàlla waaw moo xam wali yëpp nit la wali wali yëpp jinne waaw loolu de mën naa nekk moom waaye daal ay gisaane loolu keroog ba yonent bi ñëwee ci la ko yàlla faar loolu xamatul jinne yaa ngi noonu xamuñ dara ci xëy bu dañ laan déglu rek moo tax yu yonent yàlla Suleymaan yàlla daf ko tàggataloon jinne yi ñu di ko liggéeyal Suleymaan génn naa dina waaye ab yonent yaramam du yàqu mu sukkandiku ci aw xet ni mu sukkandikoo ci xet wi ñu ngi yaakaar ne deewut dee na ba xet wi maxe Suleymaan daanu jinne yi door a xam ne Suleymaan kan ndeke dee na su fekkoon ne jinne yi dañoo xam kay bu <coughs> koroon kay bu Suleymaan dee ñu xam ne Suleymaan dee na waaye xamuñ xay bu moo tax alquran ne falamma xarra tabayyanat il jinnu an law kaanu yaalamuuna alxayba ma labisu fi adaabin muhin bés ba xet wi maxee Souleymane daanu ci la jinne yi xam ne suñ xamoon xaybu mbugal mu metti mii duñ ci nekk ndax Souleymane ngi leen tim ñuy liggéey rek ndax ragal ko jinne yi yàlla tàggatal na tàggatal tàggat na Souleymane ba jinne yi ragal ko moo tax yow doomu aadama di la liggéeyal waaye doo liggéeyal jinne jinne ngir nekk ak yow waaye yow doon damoo nekk ak jinne léeg-léeg nga gis doomu aadama bu naan maay borom jinne yi moom pour moom loolu rëy la jinne kay doomu aadama ko gën a foor yàlla daf koo tàggat ngir mu liggéeyal doom adama waaye doom aadama waru nekk koo xam ne ni jinne yi jinne yi lay jaamu ñu di ko liggéeyal keroog bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la loolu jeex su ko defee ñu war a dugg nag ci diggante yonent bi ak Xadijatu beneen dartu incha allah إن أريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته